Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce jeudi 21 mars 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV ginnaaw bi nga dit président de la république Macky Sall dalal na ñi nga xamante que ñoo conseil des diffuseurs et éditeurs du Sénégal Début biir loolu nag lépp loo xamante fiscal, jëmoon na ci seen dette fiscale kii di Macky Sall daal di leen koy que di télévision ba puis dans leen nous li nga xamante ni doon TDS du télédiffusion du Sénégal Madame un million de dollars doon fay par weer les wàññi nañ leen ko defal leen ko

président de la république du Sénégal avec tous les pouvoirs avec tous les lois Tay mom su jëlee li nga xamanteni moy responsabilité dal di éponger li nga xamanteni moy cadeau fiscal ñi nga xamanteni moy yenn entreprise de presse yi jarul ngay laccé yenn entreprise de presse ñom ñoo ci bokk wala bokku ci barki dembu lañu jël fi loi d'amnistie Macky Sall jël ko mais laajoo que loi d'amnistie bi ñan ñoo ci bokk ak ñan ñoo ci bokkul alors que ñooñu ay crime le def crime yo xamanteni ay nit yu faatu ñak seen bakkan donc limay wax tay ci hypocrisie bi nga xamanteni tay mo lal ñi nga xamanteni moy wa forum civil

tous les Sénégalais ni au suffrage universel rek yow a créé sa benn mouvement dem nekk fa donc sooy demandé explication da ngay xaar ba nga xamante am nga légitimité ou bien autre chose parfois nag dañ leen di may tuuti ngeen foog ni que yéen a moom ji en tout cas lima ma la bëgg a wax rek fi la waron dégg dégguñu le fa toujours gis nañu sa position par rapport ak ni nga nekkee donc su dee askanu Sénégal nga yaakaar nga nekkal je crois que nekkaloo askanu Sénégal bi moo tax may naan ay genre forum civil yi dañoo yabaate le prochain président su ñëwee war na ci jël li nga xamante ni mooy ay responsabilité di cadeau fiscal bi nga xamante ni accordé ko ay entreprise de presse qui nga xamanteni moy le président de la république Macky Sall dal di continuer def li nga xamanteni moy réagir ginnaw bi nga xamanteni dafa considérer que les lo xamanteni ni effacer jëmale ko ci ay conditions yi nga xamanteni tay dafa wara indi ben dette bo xamanteni ni suñu ci plan d'investissement plan d'investissement bi c'est est du dara lu dul ñi nga xamante moy yenn journaliste technicien ci benn précarité ki di Birahim Seck mi ngi interpeller ki di président de la République jëmale ko ci entreprise de presse yoyu bénéficié wu ci grâce bobu bëgg na xam dal ki nga xamante moy président Macky Sall mu jox koy explication jëmele ko ci organe de presse yi nga xamante ni ñoo bénéficié wu ci potentiel bi nga xamante moy mooy amnistie fiscale bi ginnaw bi nga xamante ay type d'impôt la yo xamante dafa concerner wu ñu bind ko ci li nga xamante moy suñu euh, si comptam bu nga xamante mooy tu ginnaaw pomme ci coordinateur du forum civil mi ngi xam que inconcevable que li nga xamante prélève ma prélèvement bi jógee ci ay traitement yoo xamante ni ay travailleurs la dañuy profité wu ko ci évasion fiscale wala ci capital en tout cas mouillé li nga moi ni mooy Birahim Seck demandé président de la République pour comme mu jox ko explication un organe de presse ñoo bénéficié wu ci li nga loi d'amnistie fiscale je crois que loi d'amnistie fiscale moo ëpp que loi d'amnistie criminelle moo ëpp njëriñ que loi d'amnistie ñi nga xamante ni ay terroristes lañu moo ëpp njëriñ loi d'amnistie bi nga xamante ni ñii dañu taal ay alalu doomu aadama ñii dañu rey ay doomu aadama te yooyoo ci yàbbi ci say muy benn dette fiscale boo xamante ni ñu ngi ko jagleel ñi nga xamante ni mooy entreprise de presse yi ñi nga xamante ni dañuy créer ay emploi nekk ci secteur privé bi donc je crois que Birahim Seck sénégalais ñoom ñoo war a xam ne que daal mi ngi wane visage bu baax baax en tout cas ñu ngi koy demander il est pour demander des explications que yan organe de presse la yow est-ce que yow un forum civil yi ngeen yor yow a ngi forum civil à Tine yor Africa Jom Center euh, Sidi Gassama yor beneen euh, Moundiaye Cissé yor benen. est-ce que ñun lijjante nañu yéen fa ngeen di jëlee seen i koppar ak dóor yi ngeen di dóor yenn ONG yi Birahim Seck nit da ngay xam sa en tout cas dañ la may tuuti nga bëgg a jël lépp ñii président di jël décision du yow a koy demander explication je crois que nous mbéjum kanam borom a koy fajal boppam organe de presse yi ci bénéficié wu ñoom ci seen bopp mën nañ la tontu bu baax baax. Yeah.